daleen ak jàmm mbokk internet yu seen njariñ TV dalé wax nak ci li nga xamné mom moy élection législative yi la ndax sa suñu xëyee rek ña cey gis ay surprise ak révélation ci noné nak ancien premier ministre nek candidat malheureux ci élection présidentielle yu mars 2024 mom nak daal di lay jël journaliste critique euh, bi jëm ci gouvernement bu Bassirou Diomaye Diakhar fay di Madiambal Diagne daal di koy duggal ci liste bi jëm nak ci élection législative législative yi lee Madiambal Diagne moom ndax moy nek prochain député ci assemblée nationale journaliste bi nga xamné mom moom diriger avenir communication mom moy figurer parmi les candidats de l'un des principaux leaders de l'opposition Amadou Ba ñu nak da fay am solo lolu ñu wax ci li dox diggante Madiambal Diagne ak Amadou Ba lolé dudu lu ben benn yoon at biñu ñu génn Madiambal Diagne daf publié woon benn livre ci ancien premier ministre dippee ko Amadou Ba la dernière marche ci présidentielle atum 2024 journaliste bi nag dafa exprimé woon li nga xam ne moom mooy soutien public am jëm ci candidature Amadou Ba depuis nag défaite bu moom Amadou Ba ba léegi ak arrivé au pouvoir bu duo Bassirou Diomaye Diakhar Faye Ousmane Sonko Madiambal Diagne nag dafa gën a dëggal boppam moom nekk bu gën a mën a critiquer li nga xam ne moom mooy nouveau régime bi jëmale ko nag ci réseaux sociaux yooyu leen lan la ci Amadou Ba jublu ba jël ma Madiambal Diagne mu bokk ci liste yi jëm ci élection législative yi leen coalition boobu nag nee na ñi dañuy def seen kent lay kàttan ba am député yu ëpp député yu passé fii jilee ñoom nag mu mel ni liggéeyu Sénégal wala ñu liggéey Sénégal bëgguñu ci dara ndax nag njuuj njaaj gañu nekkee woon la ñu bëgg wéyal ba léegi te it reddition des comptes yi daal dafa mel ni safu leen benn yoon ak lu mu ci mën mais élection législative yi moom 17 novembre la te yàggatul benn ab yoon